ba tey ak très chers internautes de Pikine Info ñi nga ko am te kenn doon ko présenté ci Boy Niang parce mun nañ début carrière am moo ko yàgg gunge ba Boy Niang fi mu toll mu egsi dans la cour des grands muy Père Gana moom lañ war a séqal waxtaan par ak làmb ji nan la ko dundee ak nañ lañ ko waajalee Père Gana ñu leen nuyu. waaw maa leen di fay di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa diaspora bi waaw di nuyu Pikine Info waaw di nuyu tamit waa Pikine. waaw di nuyu ñëpp ñoo xam ne daal ñu leen jàppale ci combat bi di nuyu sama waa dëkk waa Ndondol waaw gis naa jàppale ñoom ñëpp waaw jaajëf. alors père comme ni nga ko waxee rek yaa mbër mu am benn colère bu dox seen diggante nga yàgg kaa gunge colère boobu lan moo leen ko may ba léegi ngeen mu ko sàmm. non mbër mbër maa ko yar papaam moo ma yar mais moom man maa ko yar bi may tëgal papaam mbapat may tëgal papaam mbapat boobu xale bu ndaw la ñëw jël kër ga. naan ma père père père père père ba ni mu duggee ci làmb nag papaam ne ko non man fa ma nekkoon laay dellu rek ki ma daan tëggal sama mbapat yi moo lay tëggal ba pare nag moom mu nekk sama doom boo ñaa ñu ngi naan géwél géwél sax d'accord géwél am na bu tëggal mbër mais boo ñaa man papaam laa ci côté yaayam ak côté papaam yëpp nag waaw gars yi nag dañu yaakaar ne ah non géwélam laa dana géwélu boo ñaa d'accord naa géwélu boo ñaa mais papaam la waaw ba dalé dalee ak léegi ñaar at la def so ko dañu noppale ci bis bi euh ñoo démarré mbapat rek ba rek waaw bo uh-huh. waaw mais buñ tamit tambour tamit day day laaj ngeen bañ a bàyyi seen bopp ci côté làmb nan ngay waajalee booy dem làmb. ñu nga xamoon ñun nag ñun ñun ay Baye Fall lañ ñun moom Serap Fall lañ gëm di profité di nuyu sama sëriñ sëñ Modou Moustapha Fall bàyyi Khadim Fall doomu sëñ naa Fall moom sama moom kooku mooy sama sëriñ waaw man bu may dem ci moom laay dem mu taalal ko samay loxo mu ñaanal ma ba pare waaw. monsieur ah. Père Gana mos na ñëw ci làmb sant ni tey jii mystiquement du baax muy muy sa côté ak côté mbër mi. non xamal nga moom dañuy wax mystique rek d'accord ci la bokk mais mystique mënu laa jàpp ba doo ba say loxo du yëngatu il faut say loxo dem léegi nag li ci des mooy yow effort effort moo lay yóbbu amul làmb ku ñëw dañ lay jàpp mais anti jàpp am na boo jàppee ma dindi am déet te ñun nag ay doomu séeréer lañ waaw newuñu kenn duñu jàpp ci làmb de mais sentir kuñ ko sentir kuñ fenn fu ñu jàpp ci làmb moom sincèrement gis mbër buy tuus yaa ngi moom da ngeen di déggoo ci pecc mi am benn complicité bu am sa diggante moom te loolu yomb lan ma leen may loolu. xam lu ñu may loolu man ki dàq a créé Sénégal mooy sama mag di géwél it kenn du ko weddi li may wax muy Ndongo Diop te yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana moom ak Bas Diop ñoo ma jàngal tëgg magam te Ndongo bu dee bàq rek moo ko dàq a créé Sénégal man maa wax loolu. man nak mën na sax baña créé mais sama mag def na ci man lo xamantene wa say saa yu ko bëggee defal dara nak ko defal te xamna nan lañ koy defee ba mu jaar yoon ba ko ko gis xamné li luñ liggéey la duñu jum de ñun duñu jum ci lamb de ah defaguñ ko de. mbër mi dégg ya ko def ci mom wala nga ko fekk ci mom non ki dafa dégg dafa dégg ba tassé ak papam waaw mom mot li ci des ah. mom dafa dégg mais dafa ak papam. boo ñaar ba mu daree bëri làmb ba léegi moom rek mooy seen mbër boo xamante ne saa yu ñëwee indi bàq bu bees. per loolu moo yem ñëpp. waaw loolu nag yàlla moo ko def bu ci moom du ci man yàlla moo ko def. Ah, parce que gis nañ fi gis fi yëngal gësëm gis bu ñor taab bi moo ñor yëngal gësam waa ñor taab bi moo ma gën a la yëngal gësam gis bu curuxu curuxu nga ñëw daal génn fi nga xam ne mooy gaynde gu màgget gi création inspiration bi. ak takk ci rib takk na moo ko wax sama mbokk bool bool la. war na géwélam war na mën a def lu lu neex jox ko tafaati mu mu ko parce que ñun ñëpp ay géwél bi nga xam ne contre Balla Gaye fan la la dikkee moo dafa doy waar. li ma la wax la rek. ñun moom pour ñu créer lu bees. waaw nekul lo xamante dañ koy dañ fay nek di xalat di xalat xar xar xar xar xar xar xar inspiration bu moy ñew rek waaw inspiration bu moy ñew rek ñu def lu ñu wara def waaw baax nga ngeen doon combat am tane combat bu bëri show la di bëre mbër mu mag def lu ne ci lamb mais ni ngeen ñeme won adversaire bi ak gëm-gëm bi ngeen andalon lan la xam nga fofu sax na profito mom di nuyu Balla Balla gay Balla gay maa ngi koy nuyu maa ngi koy sante maa ngi koy gërëm parce que limu def non yombul Balla amul lu mu deful ci làmb façon bëggal bu ne bëggal na ko nit ñi mais làmb day toll foo xamante ne say rakk dañuy ñëw sa kaw mais Balla amul lu mu bëggalewul amateur làmb waxuma la waaye géej way kese de Sénégal ak àdduna bi ñëpp la Balla Gaye bëggal amul ko mu daanul maa ngi ko doon tooñ sax maa ko gaynde gu màggat gi mais Balla Gaye vrai la ndax lu tax muy vrai boo ñaa am nañu ay ay ay poids lourd yu ak mom comme Balla Gaye mais ni Balla Gaye bëreeg moom kenn bëreewuñu ci ak mom nonu ñu ci bëri dañuy esté mais Balla Gaye gaynde la ma ko doon ton sax na ko gaynde ko magal gi mais gaynde la dé yalla nak moy ñëw té lolu bu bu fekkee da ko nakari man ma ngi koy jégalu man. mais gëm-gëm bi ngeen andalon ci combat wa lolu la lay wax lolu la lay wax lolu moo indi lolu lepp gëm bu ñu gëmon né mok boña bës bu ñu bëré hmm boña da koy daan ci kàttanu yalla gëm-gëm boobu nekkul woon ci booñaa kese te combat booñaa wax na ko mais dégg ko nee na ko fu ne jaar nañ fa man ak yow nga awale ma fu ne te yàlla moo ñu boole te ci kàttanu yàlla yàlla daf may may ndam wax boobu rek moom waroon na ci xool mais ma koy ma koy xamal ne hmm? moom amul lu muy regretté ci làmb Balla gay amul lu muy rekk regretté ci làmb Balla def na lépp buat dana dan dan dan dan dan bo yegg fi nga wara yegg yalla moy def indi keneen ko ñëw dan la mom bi muy daan ay ni dan ay Tyson dan ay mohammed euh, ki ay Mustafa, gay dan ay ñom Baboy bobu ken ñemu ko wax nan ko say ay kay ay kay day magat mais yalla te yalla moy indi lamb way la benen bi sama grand adam Ngom dem waxtan la ak doomi ci stade bi affaire jexé man adam Ngom samay référence la bokk maa ngi ko doon tooñ nag. waaw ah, na waaw non nit ñi sax ñoo sax ñoo gis tooñ mais du tooñ. Oh, gis nañ bi nga xam loolu moom tamit créé bi neex. waaw combat bi neex na. Ah. mais dama koy jégalu parce que moom suma suma grand la. dafa bokk ñoo xamante ne daf ma jàngal tëgg bokk mbalaxal naa ko. Ah. waaw xam nga mbalaxal naa ko Adama Ngom. kon boo lambu jotee mbër. di bëre ngay tëgal ngay tëgal mbër moom man moom muy tëgal mbër. léegi kenn ku ne dangay bëgg a rek. foofu laa waxee ak moom mais moom teewul suma mag la te grand bu baax la grand bu jox nit cër la te fu ma gis daf ma jox sama cër ah maa ngi koy tooñ ne ko maa ngi koy tooñ ne ko yow yaay sama premier fans mais loolu moo am moom fu ma gis moom soxorul fu ma gis naan mais booy waay. yaa mën li ngay def. non ne ma macha allah waaw booy yow da nga mën li ngay def xam nga wax boobu moom mu koy wax mais man xeeb ma ko mais bu dee làmb nag pour sama mbër gagné. mom day wax lutax mburam gañe man tamit dama wax lutax sama mbur gañe kontaan na ci père ma bayil la nga tàggatoo waaw voilà mu nga bàyyi legi mais en tout cas daal maa ngi jégalu waa géej waay gépp waaw parce que xam naa seen gaynde ko màggat gi mo wax tooñ naqar na lol mais ñoom lion lañ yor yor ñu yor ñu gaynde ko màggat de lamb mo tolu fofu nee naa Balla Gaye màggatul mais lamb mo màggat motax mané ma Balla Gaye gaynde ko magat mais balagay gaynde la de jërëjëf mi ngi noonu jibi mu nekkoon père ganna le grand tambour mazor di leen jaajëfal bu baax dégg nañ li mu wax ci combat bi di leen jaajëfal bu baax merci beaucoup.